loo xam ne yaa ngi koy defal sa kilifa. lépp loo xam ne yow yaa ngi koy defal sa kilifa. bu ñu ko nangu. bu doonee jëf ju ñu nangu. Serigne Touba dana la boole. Serigne Touba da lay boole. ñu la ko def ak ñu lay defal loola. te bu ñu koy defee. nee na ñooñee bu ñu koy def. xol bu sedd lañ koy def. nee dañ koy def ak xol bu sedd guy. waaye yéen a ju sell lañ koy def. ak yéen a ju sell. waaye mbégte lañ koy def. ak mbégte tam. kon loolu. nee na kon loolu. Serigne Touba nekkul ba ëllëg. Serigne Touba du xaar ba ëllëg. mu duñu woon dara. daf ñoo woon ci àddina. daf ñoo woon fii ci àddina. malakan yi dunya. malakan yi dunya. uxraa samani. yàlla da ko jox tiraangay àddina. yàlla daf ko jox tiraangay àddina moom Serigne Touba. ak tiraangay àllaaxira. lii nag. nee na lii nag. tiraangay àddina ji la bokk. ci tiraangay àddina ji la bokk. Touba kon na ngeen xam ne seen jëf ji. kon ngeen xam ne jëf ji. jàddul ji. jàddul tan dëngul waaye dëngul jëf ju jub la nee na jëf ju jub la ju àgg la ju àgg la waaye ju àgg ci sëriñ nee yegg ci sëriñ Touba la ñun kat nee na ndax ñu ñii lu tàbbi ci suñu loxo lépp lu tàbbi ci ñun ci Cheikh Moussa la ci borom keere rek la jëm te borom keere lu ko waaye jox te borom keere lépp lu ko waaye jox sëriñ Touba rek la ci sëriñ Touba rek la jëm kon nee kon sëñ Mandiaye na xel nee na xel mi nañoo dollee daal liggéey bi daa liggéey bi nungu na dafa nangu nee na liggéey bi nungu na nee na népp liggéey bu nangu liggéey bi daal nangu. nee liggéey bi liggéey bu nangu la. ndax Mbacke Bal Mbacke Bal lay Mbacke yàlla Mbacke yàlla Mbacke yàlla Mbacke ak lu ngeen fi indi ci Cheikh Makhtar borom Kéré lay dem mu dem moo tax ma ne liggéey bi jàdd dëngul ci may daane la la bàllay seen nekk luñ suñ suñu bopp ndax matewuñ lii nii jëf ji ëpp na ci ñun rëy na ci ñun waaye nag li tax du rëy mooy diggante Serigne Touba Serigne Makhtar ndax lépp moom lañ koy dem kon Serigne Mandiaye sant nañu cant bu rëy waaye gërëm nañ mboolem mbokk bi yi nga àndal kullu Baay Faal ak kullu Yaay Faal sant nañ gërëm nañ sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax a baax ci daraje suñ Maxtaar Mbay Keere ak suñu Moor Keere mi nga xam ne ci ay digganteem lañ nekk waaw amuñu fenn foo xam ne dañuy génn Serigne Touba diggante suñu Moor Keere ak suñ Maxtaar Mbay Keere ci digg bi lañ nekk lu fi waaye jëf te jëfal ko Serigne Touba rek barab bi yayoo ko loolu xam nañ ko kon sëñ Mandiaye damay dogu ne jëf ji àgg na jataayu Sëriñ Tuubaa lu mu kumb kumb lu mu neex neex dafa am ñaari fee daal bu ñu gisee deret Sëriñ Tuubaa dañ bu doon ab liggéey nangu gi dañ koy jàpp ne nangu na bu ñu fa gisoon surtout Cheikh Rafa dañuy jàpp ne liggéey bi gën a naa nangu kon sëñ Mandiaye cant gi ma cantoon daaw cant naa ren cant ko raw mbégte ma ma amoon daaw am ren mbégte mu raw fi ngeen ñu fekkoon daaw foofu lañ fas yéene te duñu ko wàcc ndax bërëb bii nu nekk nekk fi kenn ak nekk mbooloo lañu yemal ndax ki nu yónni moo ndax noo bu kenn ci bi du ñun guddi ci bi fii nag kook Serigne Touba ku ne dugg na fi kook kook Serigne Touba ku ne ku nuy wax ku ne tàbbi na ci barab waaye ku ku fi ñëwit fii Mbàkke Touba rek ngay toog lal bi loolu tax ma def ko du sama jëmm ji de ndax ñii duñ toog ci suuf ma kon lal bi mënta ñàkk ah am déet noonu la wala noonu ah ñoom lañ ko fi defal di dañ leen ko fiy tëyal bañ ñëw buñ ñëwee rek ñu jox leen kon sëñ Mandiaye ma lay dolli ne la taalibe gi ngeen nekk moom rekk mooy li am solo mooy li am njariñ leneen lu dul ak taalibe bi amul njariñ amul solo gisuma ci àdduna lenn luy jariñe yi lu dul ak taalibe dara luy jariñe lu dul ak taalibe gisuma ko te jàpp naa ne jëf ji jëfi taalibe la Mbacke maa ngi lay seereel na daal ndax man nga ko mooy sant man nga ñoom ñi sant nañ bu baax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد العزبلة وبعد البسملة بعد الحللة وبعد القوقلة سادي لساني نير جناني زميل أماني وزبراي جرى جفة برم توبا جرى جفة برم توبا جرى جفة سرين توبا جرى جفة سرين توبا جرى جفة الشيخ أحمد بن خادم رسول جرى جفة الشيخ أحمد بن خادم رسول يا رام مام شيخ إبراهيم الله يا رام مام شيخ إبراهيم الله بمتالبي إنجليزي أربعة di jëw ci néew bi ak ziar bi xalifatul xam ne tarixati mu ngi sëñ mu taxaan sa sëñ ñaan yàlla yàggal ko taxaan lool sëriñ Modou Mbenda muy sëriñ Amdi Modou Mbenda sa borom yàggal ko loolu tam ànd ak wér amaan na lii day feddali kóllëre ak dégloo waay dégloo waay kóllëre yi lépp solo ci doomu aadama ndax ku tedd gi dañu xamal ne barakatul maa yaxaala yel basarat mustafaxat kulliyati wa basharat ñaan na yàlla kóllëre ba yàlla jox ko ko ndax li tax mu ñaan ko ci jaale ba maraaxi bi yaa man yaay nga xam ne bi ñu sa daraja ya jugu nii ci nga may darajaale alxaji bu ay kéemaan waaye nag kéemaan yu anut ak saaba yonente ba ak njonja boobu kéemaan du kéemaanu dara moo tax mu ne ko wa ali wa sahbi wa sallima waxi si bitaay bi su ko fal moo ma kuy sikki sàkk mbiru Serigne Touba xamoo Serigne bi ku ñàkk xam mbiru nitu Serigne Touba xamoo Serigne bi te ak taalibi képp moo jëra roy tey daa feeñ te li tax mooy du caagi na da day yëkkati lenn waaye ak tey te ni man xal ba ansa kullama ma daan mi na dim naawam ëpp bu leen def yenn jëf ngeen jàpp ne da ngeen ko mu bëri nit def ko ren mu am ñett li ngeen yaakaar ne jëf ji daan néew nit ñi dépendruñ ci ngeen di jëf nit ñi di bëri Serigne Touba mi ngi ci yéene ji ngeen am ci moom di ko ko jëfal ndax rabbaahi ya madohu li lazine madohu max nam ci mi daal di wàq la mel ni ma sax sax ak yemma mu ne bu ngeen di jëf te yàlla rek tax man sëriñ bi man sëriñ bi ma ma fegal leen ñaar defal leen ay magasin yoo xam ne mën ngeen ko tuddee alxasail wala alisail ay magasin yoo xamante ne nii bis bu ngeen tijjee muy doon ay jur di soweeku ci seen kaw moo tax sama sama mbooloo taamuma ci mu doon fukk wala mu doon ñaar sëriñ bi li ko yitee leen képp la mooy pas-pas bu jëm ci moom hmm. te jamono ji pas-pas daa jafe ci yoonu murit bari na ko kuy wote ab mourid fekk du mourid seigne bay jaxati neena ab mourid deug yombut la yombay ne ab mourid la fekk do mourid mourid nak da fay dëkkee xalam dëkkee lu bax ci am xelam day rafetal yéen xolam bu dee sikkar xol ba di xalam waxaan ne yàlla nag xalam lañ koy gëmé waaye baatin xalaat lañ koy amee te ku xalamul bu gëlëmee moo moo silmaxaal gëti wala waxaan ne bu jéem di saxle loo jiw ngir jéem di saxle loo jiwul ak gàtt xel képp la da ngay ut ay ngërëm jënd da ngay ay ay jënd kuy mooy te bëgg àjjana nag la nga bëgg da lay jomb par la force ndax kenn mënut a mooy mooy ju ànd àjjana ak fenn kon li ñu dimbali mooy ñu gën a dimbali suñu bopp ci feddali coloré mooy lii ñu def ndax daa am lu waroon a jiite waaye waxtaan bi fi mu tolloon moo taxoon mënuñu ko woon a jiital mooy ñu ngi ziar bu baax li nga xam ne jot na leen a ziar muy sëriñ Mountakha sëriñ Modou Menda waaye Baye Makhtar Mbaye Kera day mag ci sëriñ bi li tax day mag ci sëriñ bi day magum sëriñ bi magum mooy ki nekkoon ci ku nekkoon ci ku tedd gi boole woon di jëpp te yàlla rek sax ak sëriñ bi bi ci des am nañ am nañ fay wëlëre muy sa ab ndax suñu kër yi soriwul gaar bu ndaw ak kër sëñ Abdou Mbaye Guèye bu soriwul buy daanaka guy mi de gaar ndaw ben ñom ñe seeni wasi la sama sama mag la muy sëñ Mour Gaynde ñu bokk ben bay da leen wax deug dëgg xaritoo baax na lool way and bu deug anu sax mo ëpp lepp solo ndax xarit lo xamantene ni da ngay fexé di jël nit ki diko duggal ci lu bax mo ëpp lepp solo nga jël nit ki diko duggal ci safan da am ño xamante ku leen jégué rek da nga jëriñu waaye événement nañ koy moytu Serigne Touba dépassé na foofu Serigne bi dépassé na fi ñu koy xoolee muy tolluwaay boo xamante ne nii bu ndaw la ci ñun te Serigne bi dépassé na foofu ndax moo ko wax ci xasida yi wajaxal kitaabati min sal yow mi fawqa saati xubilal wa saw mi wajaxal kitaabati min sal yow ah, mi fawqa salaati xubilat wa saw mi wajaxal mi doon كل ماء بركة كما سري سواه